ay semaine ngi nii ñuy dégg ñoo xam ne ñu ngi waxee fu ne di joxe seen xalaat ci nguur gi di def ay critiques yoo xam ne lalawul fenn di ko jëmale ci nguur gu bees gi ñu koy déggee ci médias yi ak ci réseaux sociaux yi impatience population bi mel ne mënatul xaar ñu koy gën a faral di gis waaye muy jóge ci ay mauvais perdants ñoo xamante ne ba tey wanaasoo guñu seen défaite ci présidentielle 2024 ñoom dafa mel ne comprendre ñu lan mooy tànneefu askan bi si débat bi ku nekk di wane sa mer ak sa ñëkk xeetu réaction yi nag dafa mel ne ñi koy def comprendre ñu gouvernement bees bi nu muy doxee dafa nekk rupture boo xamante ne processus la maanaam da ngay teg tànk tegaat beneen tànk ba ñu yegg ca mu mel ne dañuy toj di tabaxaat lépp loo xam ne dafa ñeel wàllu affaire publique ak projet de développement processus la boo xam ne dina gudd te itamit dina bëri xaaxaam nomination ministre ak DG ak administrateur yi pàcc li nga xamante ne mooy étape bu njëkk bu ñu naree toj di tabaxaat njiitu réew mi nag faw nag mu teg base yi yeesalaat personnel politique administratif bi faw nag loolu am bu ko defee appareil administratif ak politique bu pouvoir patriote yi mën a gën a taxaw gouvernement bi nag faw mu xool tam benn stratégie lay teg topp tam benn plan boo xamante ne day tax ñu mu mun tabaxaat état ak administration bu bees faw nag mu ànd ak ay personnel politique administratif technique ñoo xam ne dañoo xarañ tey tamit xam fan la nguur gi jëm ak gouvernement bi loolu bu amul rupture duñ mënuñu ko wax gouvernement bi nag war moytu daanu ci ndëgg sërëx bi nga xamante ne yàkkamti moo koy indi ak di yaakaar ne problème yëpp mun nañu ko faj ci saa si politique nag dafa ànd ak xalaat ak xeltu togg ko ba mu ñor togg ko ba mu ñor doog a yàq li nga xamante ne moom nga dig askan bi